galvaniser et eh bien donner des notions de fair play aux élèves. Donc ça c'est un pur jeu. ba est dañuy fo foog la ba ñu ko commencé ba tey gis ngeen commencé ko bismillah alhamdulilah dañ ko bëgg jeexal ci bismillah dañ ko bëgg a jeexal alhamdulilah ci foog ree dong lépp pour ngeen bëgg bu ngeen gisee ñii di sonn kii représentant maire gis nga kii mooy directeur bi Anta xam ngeen leen ak monsieur yi fi nekk bu ñu soññee yëpp pour rek ngeen mën a ànd nekk benn jubóo loolu la ñuy wut te loolu ñu yaakaar si yéen ñu ngi leen souhaité benn chance bon monsieur Guèye ba mu nekk pour ay paroles ngeen di boole alhamdulilah aywa bisimilah. vraiment je me je ne m'attendais pas. mais comme euh, li monsieur Diouf wax rek ci loolu laa koy rejoindre la euh, surtout avec le fair parce que vous êtes nos enfants qu'ils soient à Diayar ak Amadou toutes les écoles ba nga pour polariser lépp ci fo rek ak kaf ak ree lépp ci foofu la war a taaju. te je pense que niñ ko commencé ci noonu lañ koy àggale peut mënoon naa bañ jël parole parce que li monsieur Diouf wax moom la ñëpp di wax mais dañu leen di ñaan vous êtes nos enfants vous portez le drapeau donc ñoo ngi leen ñaan ngeen fubal ko si jàmm mu jeex si jàmm que le merci beaucoup. di xamal ñi ko xamut ne bés bi bës bu màgg la tey muy bés bi nga xamante ne mooy bésu finalu. compétition bi ñuy ooyee la relance du sport scolaire ñu nekk fii nag bokk ci comité local de gestion pour la relance du sport scolaire fii ci zone Bangadj ñu nekk ren suñu deuxième édition bi nga xamante ne final bi jot na di ngeen ko gisee tey ñi fi teew yëpp nekk fi tey pour sargal xale yi parce que lii xale yi lay sargal ndax sport dafa di loo xamante ni dafa am solo trop xale yi ñu war leen pare ci bépp na école du mbirum mathématique ak français donc mais sport mu ngi ci biir ndax ku nekk nekk suñ loxo tey futur sportif bi président la république ministre député beeg ñëpp a ngi suñ biir kon ku ci nekk war nañ la waajal jox la àq ba la nga mën a nekk ëllëg ñu jox la chance yëpp pour nga war ko mën a nekk loolu moo waral lii tey tax. man ak maître yi nga xamante ne ñoo seq comité local de gestion et de relance du sport scolaire fii ci Bangaaj ñu nekk ci biñ ci tàmbalee ba léegi di ci dox guddeeg bëccëg ba tey fii nii mu nekk occasion boo xamante ne dama koy saisir di remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique du CODEC de Bangaaj en général et en particulier ceux-là qui m'ont accompagné depuis le début ñi nga xamante ne ñoo nekk ci comité de gestion du sport fini au niveau local guddeeg bëccëg ñu ngi ci ay réunion di dox distance yu bëri ngir ñëw teewee si réunion yooyu lépp pour réussite am ci suñu comité bi te macha allah rëccu ñu ko aussi muy daaw muy ren gis nañ ñi mu demee ñu ngi ciy dolli sant yàlla su ko defee ñi fi teewee yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm affaire bi nag dafa amoon football am athlétisme athlétisme organisé woon nañ ko keroog ba tax moo waral prix yi ñu teg fay di ko fas yéene sargale xale yi nga xamante ne ñoom ñoo gañe woon kon ci loolu la ñuy fas yéene jublu laataa ñuy tàmbali deuxième mi bu final bi kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. juste des mots de remerciement. Il conviendrait que je suis étreint par l'émotion, au moins pour deux raisons. D'abord, c'est dans cette école-là où j'ai fait mes humanités. Ensuite, ce terrain de football me rappelle beaucoup de choses parce que dans la fleur de l'âge, c'est là où nous nous exprimions. Donc, je voudrais remercier les équipes pédagogiques de toutes les écoles parce que cette organisation-là entre parfaitement dans le cadre de la formation de nos enfants. Donc, je voudrais vous remercier très sincèrement. Je me retrouve entièrement dans les propos tenus par mon grand frère, Diabel Sambou. Et je voudrais vous faire une petite promesse. Et l'année prochaine, allah je prends l'engagement de vous aider à prendre en charge les frais de cette organisation. Ça, je prends vraiment cet engagement-là. Parce que tout simplement, j'en tire beaucoup de conséquences sur le plan psychopédagogique. Et ces conséquences-là, je les résume tout simplement autour du mot socialisation, qui est extrêmement important dans le processus de formation de l'enfant. Je ne serai pas très long, euh, je m'en arrête et vous remercie très sincèrement. Merci beaucoup.